dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëyandoo waa Grand Place Sud Quotidien La Tribune Vox Populi Les Échos 24 heures Libération yéenekaay yi yëpp xëy di ñu xamal nañu jàngoroy coronavirus bi neexul ba neexul waa nag maa ngi law ci réewum Sénégal ndax nag ni ki démb lu toll ci fukk ak ñett ci ay nit daan nañuy amee jàngoroy coronavirus am na nag ñaari nit ñoo xamante ni daal dinañ siy wér yéenekaay gii di waa Grand Place mu ñu xamal nañu lépp nag bu ñu ko mbogo mbogo toll na ci téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yéen kaay gii di libération moom mu xëy di ñu xamal na ñu jàngoroy coronavirus ji ma ngi nag di law waaye nag rawatina ci ndakaaro ndax mbir mi jamono ji fi la di ëppee journal bi mu xëy di ñu xamal na ñu Abdoulaye Diouf sar ndajale mi nga xamante nag ñoo ngi koy dajale ay koppar ngir jano ak coronavirus toll na ci benn milliard bu fekk ñetti téeméer ci ay a Maysa Babou di ab économiste moom nag la mu xamle nee na conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales dañu ko daal di war a xoolaat te seen activité jamono ji ñu daal di koy dakkal la nga xam ne moo fa nekk ni ay fonds politique maanaam ñu daal di koy jëfandikoo ngir mën a janoo ak jàngoroy coronavirus moom may sababu économiste bi daan nay wax ne fon politique yu Macky Sall yi huit milliards ak Moustapha Niass six cent millions loolee lépp nag mënoon nañ koo jël daal di koy dugal ci li nga xamante ni mooy koppar yi askan wi jot a dajale mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoom daal nañuy góorgóorlu ndax lu toll si juróom ci ay millions daal dinañu koy génne journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci arrêté ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi ngir nag bañ ay dajaloo am na ñaari imaam yoo xamante ni teg nañu leen loxo ni ki démb ca ndar daat nañ leen di déglu yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamal naan ñu en tout cas ñaan yi nañu ko yokk ndax li nga xam ne moom lañ gis ci réew mi maanaam dalagul xel jàngoroy coronavirus ji ma ngi gën di law ci réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daat nay dalal ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy taskatu xabaar yi daat na leen di xamal ne leen nag subvention bi maanaam ndimbal li nga xamante xamante ni état bi daanaka dimbalee presse bi ren ji nag dafa koy daal di yokku maanaam daf koy doubler te nag maanaam ci ni mu gën a gaawee la koy daal di génnee daat leen koy jox yéen a kaay gii di vox populi mu ñuy xamal na ñu ñi nga xamante nag ñooy tata yi dañu leen a wax ñu yem lu yëpp waaye nag tata yi daal ñoom ay chaise la ñu jël ak ay banc dugal ko ci tata ngir nag nit ñi nag di ci tooka yéen a kaay gii di Les ñu fekk fa maître Ciré Clédor lii avocat bi moom nag nee na jamono ji daal ñi nekk ci kaso yi ñëpp ci Sénégal dañu leen a waroon a génne nag maanaam ci 3 laa ko daal di jot naa bind sax ak ki nga xam ne mooy Macky Sall journal bi di 24 heures mu ñu xamal naan ñu frontières yi nga xamante ni daat nañu koy tëj ak nag transport interurbain bi nga xamante ni dakkal nañ ko loole nag la muy jur mooy Dakar yàpp moom kenn du ko fi daal di gis yéenekaay gii di Vox Populi mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci ñàkkug ndox gi nag dina daal di jaba jonge ci Ndakaaru ak ci Rufisque ndax waa Sen'Eau ñoo ko xamle ndax ñoom nee nañu dafa am ay defaraat yoo xam ne moom la ñuy daal di def yéenekaay gi mu ñu xamal ñu nag ñi nga xamante ni ñooy secteur privé bu Sénégal ni ki démb njiitu réew mi di président Macky Sall daal dina leen di dalala béy di aañ moom nag daat nay xamle ne Macky Sall ci boppam musul wax ne dafa nag mereñ yi nga xamante ni ñooy secteur privé bi ma Macky Sall kay li mu wax ci audience bi mooy daf ñoo jaajëfal ba pare nag daal di kontaan si ñu na yéen kaay gii di libération mu ñu xamal nañu secteur privé bu Sénégal ni ki démb nag njiitu réew mi di président Macky Sall dalal na leen ñii ñoo nekkoon ca délégation ba béy di aañ président ba ñi Diop Massour président Macky Sall nag moom la mu xamal nag ñii nga xamante ni dalaloon na leen nee na leen daal man musuma wax ne dama leen a mere man ministre bi ñu denk wàllu miin laa doon waxal ndax moom moo ne ma dafa am ab multinationale canadienne boo xam ne dafa génn cinquante millions Macky Sall ne cinquante millions yooyee jaaduwul ndax na kooku ay milliards yi lay gañee Macky Sall ne ñi nga xam ne ñooy waa SAR ñoom tim dix millions rek la ñu génnee loolee nag moo taxoon may wax Macky Sall nag ñun dañu nekkul di yalwaana mënoo ci réew mi maanaam nag di génnee ay somme yoo xamante ne yu ñàkk fayda lay doona Macky Sall ne secteur privé bu Sénégal man daal damay wéy di leen di jaajëfal waaye Y'en a marre ñoom nag démb xamal nañ Macky Sall na ko facture yu courant yi ak yu ndox yi dañoo bëgg gouvernement bi daal di koy jëlal askan wi fii ak ñetti weer yéen kaay gii de la turbine mu xëy di ñu xamal na ñu Soumaïla Cissé mi nga xamante ni nag moo jiite ku jéega ca diwaanu Mali ñu tegoon ko loxo daat nañu koy libéré waaye nag ab garde corps am dañu koo daal moom nag mu xëy di wax ana nan la def ba nekk roi des arènes moom nee na suba gi da ngay mi midi nga entraîner ngoon ngeen nga daal di entraîner beneen bi ngay récupérer di concentré wu ba pare nag boole ci a gëm yàlla gu mat sëkk.